sëriñ bi wax ñu nan nga tudd ak euh, si ban kàddu ngay waxee fii. man maa ngi tudd Kalidou Dia maay responsable Mbayeen Poul. bu parti APR. bu parti APR. Mbayeen Poul mu ngi bokk ci commune Fandène. waaw loo bëgg leeral waa Thiès ak Sénégal yi lay déglu. li ma bëgg leeral mooy kàddu yi nga xam ne yii dégg naa ku ñu wax ko ci ci ci émission boobu sax ak émission bi lu lu lu dëkk bi wax waaw. léegi nag kàddu yooyu ñu wax foofu man yooyu laa wax ne man kaddu yooyu man ke ko wax man en tant que responsable man waxloo wu ma ko na ministère kam ne man waxloo wu ma ko. ki ko wax na daal ministre Augustin Tine day day day day def ay ségrégation entre pël ak séeréer waaw day day def ségrégation entre pël ak séeréer te yooyu amul. yooyu entrée ségrégation yooyu mu ci wax amul ñun depuis bi ñu àndee ak moom itam mm, lépp loo xam ne lii ñëw na ci commune Fandène suñu walla su ñëwee diñ koy jël ñun waa Mbayeen pour ah? defar nañu yoon te amuñu woon yoon mm-hmm. nawet bu musaan jot diñ doon am problème mm-hmm. pour dem Thiès dégg te yoon wi bi ma ko defaree ñu ne moom defarul yoon bi ay dañoo baare oto chinois yi mu dem pour ñu chinois bi moo leen defaral yoon bi. kan moo wax loolu ci ah kan ko wax. ña ko wax góor gi sow moo ko wax ah. pour mu leer. Ah. dégg nga waaw man nag man man nag boobu la kamut man. yëguma waaw man yëgu man assurance boobu man kaw ma tawatu mbayeen pël nee na ministre bi li muy leen digoon defu ko ba pare dafa am ñu muy xàjjale si biir dëkk ba est du yéen ñi ànd moom lay defal ñeneen ñi bokk loolu amul hmm. xaj Augustin Tine képp ku ko kam xam ne moom amul jikkooy ay kàjjale ak seen loolu amul te man li ma la koy mën a firndeel bu doon kàjjale di am man soo ñëwee man sama kiir fa ma dëkk di di am pro kon loolu def am mais man li ma la wax pour mu leer ne ànduma ak moom intére moom boo ñëwee sama kër da nga ci am pour képp ku dégg sama kàddu yi da ci am pour bu leer ne man ànduma ak Augustin Tine ngir intérêt mm-hmm. kon nag moo loolu moo lay woon pro ni lii mu wax nii dara nit ku ci waaw mais tali boobu diggante euh, Cité Balabella ba booy dugg Fandène ci àcc yow est que tali bi egg na Fandène tali bu ñuul bi tali bu ñuul bi ah. tali bu ñuul bi Fandène la yem ñun taali taalib bi egg si hmm. latrit la waaw ñëw na bi ci mbayeen ba ci pénc mbayeen ñëw na ba foofu hmm. waaw ah dafa am leneen lu Augustin hmm. déedéet Augustin lépp lu mu ñu mos a wax mu ngi ci mu ngi mu ngi ci mu ngi ci mu ngi koy mu ngi koy def mu ngi koy def waaw am nañ ci ay ay jigéen konti wama leen waaye ay jigéen ñu ñu ngi jóge mbayeen Pël di fayeeku foofu di fayeeku bourse familiale waaw waaw ñu ngi gis njëriñu njëriñu ñaam ñu ngi gis njëriñu président Macky Sall mhm. parce que président Macky Sall moom ku jub la bëgg àndal te ministre Augustin Tine dafa jub mhm. ndax daf am loo xam ne lii nit ñi dafa am lu fi amoon ay rente loolu moom amatul dégg nga loolu mooy maanaa euh, tama tama tama jóg leen ma xaalis rek ko joxul xaalis mu mu mu mu mer loolu moo fi lawoon loolu nag euh, Macky Sall def ko dindi fii nit ñi nañ dem ñu liggéey xaalis gis nga ku ko bëgg am dangay liggéey loolu moo koy maye mais du même pas boo ma joxul xaalis ma xas la wala bu ma buggee poste bu ma toog naa dem denoo si ndax nga jël ma ci càmm ne xaal yooyu moo fi am da nga di wax loolu loolu la bëgg def. li ci li ci bari santas la ñuy def ñi ci gën a bari dañuy santas rek. waaw amuñu amuñu amuñu. Euh, pas-pasu ànd ak nit ki sans ñu chantage gis nga tey li ma la wax lii pour mu gën a leer bu fekkonte ne débat bii suñ ma kër nga ko def su ma la waxee ne Augustin Tine du man du ànd ak nit ngir intérêt kooku da nga ci am pro bu leer waaw pour ku mu leer ne man ànduma ak moom ngir intérêt wala ngir lu ma ma defar ànduma ak moom loolu de dama ànd ak moom dañoo war a ànd te moom góor la te liggéeykat ci ci commune Thiès yëpp département Thiès yëpp mu ngi koy liggéey. li mu ci jigéen ñi am nañu ndox bu neex bu ñu naan foofu. waaw waaw am nañu ndox. Uh-huh. am nañu ndox jigéen am na ci financement yi parti bi di waaw waaw na leen financement. waaw waaw. ah waxatu leen dara. ah waxatu leen dara. ah ñu ngi sant yàlla di. waaw ah, kon góor gi loolu muy woote si rajo kay na moom la concerné. ah yow it concerné li mu wax niwul moom kay ne moom moom moom moom la concerné mais li ma la mën a xamal moom bu waxee ci turu dëkk bi la wax moom man waxul ci turu dëkk bi parce que man maa fa nekk responsable xanaa nit kay balaa nga dem da koy tàggu moom war na ma taggu ne ma lii ak lii ak lii ku bu ñu bokkee dëkk foofu war na ñëw mu ne lii ak lii ak lii wala ñu bu fekkee dafa am la ko métti ci Augustin Tine moom gis ko Augustin Tine yomb nag war na dem ba kiram ne ko ministre lii moo ma métti lii moo ma métti mais même pas muy te teggi di di ñëw ci ay média ah mu ñëw ci moom comme ni mu moom de am na soxla yoo xam ne day ñëw ci Augustin Tine mu ko koy defal te waxu leen ko. yow fekk nga ah fekk nga ko moom. Hmm. waaw waaw fekki fekki naa kay. yow hmm. kay na leer nit ki doo questionné nit gis nga nit lëkku ma du lëkku ma ci ndab lii rek. nga ci kopp suuf nit ki dangay ànd ak moom. te yàlla tax nit ki dangay ànd ak moom ngir sa ngor. mais est am na ànd yàlla man de politique man bi may politique. Hmm. Hmm. man politique yàlla tax may ànd ak moom. parce que Augustin Tine sama kër defaluma loo xam ne lii war naa ko mën a wax ne lii moo tax ma ànd ak moom mais man li ma ànd ak moom ngor ak ak ci moom yaakaar ak dëkk ak moom moo tax ma ànd ak moom. ak xam ne tam yoon bu mu somb yoonu dëgga ku ci topp dangay doo riir yoonu dégg diis nga nit ki bu ngeen àndee ci lu dul dégg it yàgg yàgg rek di ngeen di tàggu mais même pas santas ay nit loolu bo bo man man bu fekkee loolu mooy politique man kon mënuma politique man du ma du ma du ma xas nit duma ko santas du ma ko wax lii ak lii loolu yéen yéen journaliste yi xam ngeen loolu yéen xam ngeen jikko yooyu man dundama loolu di man dema man demaay sàmm sama ngoor hmm. waaw waaw man damay sax bu do bu fekkente ne àndu en loolu rek laa doon ànd ak moom kon ba tey defal na ma loo xam ne boo ñëwee mbayin poul lépp dañu naan bola kon kay kii kii àndoon ak moom rek la defal mais mbayin poul boo seetee sax man maa ci maa ci gën a maa ci gën a des gannaaw kon nag nga xam ne man ànduma ak moom ngir lu ma ma defal mais am na loo xam ne na man dem ko bugg te yàlla tax am na loo xam ne man su ma ko déggee ci moom en tant que kilifa man dinaa dem man ma défendre loolu leer